ñu ne itam bépp cër boo xam ne dafa sensible lu mel ne roñon nga xam ne mi ngi ci suufu faar yi ndeyjoor yi ak càmmoñ wala mel ne gàddaam nga xam ne mi ngi ci suufu faaru càmmoñ yi nañu moytandiku téléphone bi di féete foofu ñu ne itam nañu moytandiku lii lu am solo la di it di jëfandikoo téléphone lu ëpp maanaam tiim tiim écran bi sëgg nii rek tim ko tiim gu yàgg loolu wóorul am na ñu def gëstu ci benn société bi ñuy wax Surgical Technology International ñu ne soo sëggee ci ecran téléphone lu yàgg dafay mel ne yaa ngi yenu ñaar fukki kilo ak juróom-ñaar ci sa ginnaaw maanaam loolu mi ngi tolloog xale juróom-ñetti at nga tungoom ko nga tungoom ko ay waxtu yu waxtu wala ay minute minute noonu la mel soo toggoon tungoom xale juróom-ñetti at wala nga jël ñaar fukki kilo juróom-ñaar teg ci saw loos sëgg yaakaar bu yàggee mu indi la jafe-jafe bi ñu gëstoo ñeenañ ki nga xam ne dafa yàgg ci téléphone sëgg gaay sëggaay googu mu yàgg conséquence yu mel noonu lay joxe ndax téléphone bi boo ci sëggee yéen sëgg yi sa yaxu digg ginnaaw gi euh, day mel ne ku suj ku ku rukon bu ni muy soo ko xaajoon ñetti xaaj sëgg nga ñaari yi ba mu des benn loolu bu yàggee day yàq yaxu digg ginnaaw jël sa téléphone itam di mel ne kuy def li ñuy wax ojo jël sa baaraamu day teg ko ci bouton bi téye rek ay ñaari minutes ñetti minutes ñeenti minutes ba fukki minutes ku koy def itam bu yàggee